bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di indil njàngaleem sëriñ Touba ci télé bi ñuy woowee Grand Théâtre TV mu doon benn site internet boo xam ne euh, lépp lu baax ci réew mi dina ko jiima indi waaye ñun nag waxtaan wi ñu leen ci tànnal di leen ko ci defal mooy majaalis di njàngaleem sëriñ Touba mbindam sëriñ Touba xalimaak sëriñ téere yi sëriñ Touba duñ ci yokk dara duñ ci wàññi dara diine kese la xeeti xam-xam yañ tànn ca mbindam sëriñ Touba nag di leen ko waxtaaneel feq la tawhid tasawuf ñetti xeeti xam-xam yi nga xam ne moom lañu soxla xàmmee ko ràññee ko jëfe ko ci bàmmeel nit ki bu duggee ci bàmmeel yooye lañ ko fay laaj yooye lay lijjanti bu baaxee léppam baax sëriñ tubaa nag bindal nañu ci ay téere muy ñeenti ponki lislaam yi julli woor natt asaka dem màkk ginnaaw gëm yàlla mu ne julli nga nele ay farataama nga nele ak sunnaam woora nga nele ay faratama nga nele ak ay sunnaam natt asaka ma nga nele leemoodi faratam leemoodi sunnaam woor manga nale leemoodi faratam leemoodi sunnaam farata mooy loo xam ne boo ko indi wut loola yàqu mu jàngal la ko sunna mooy loo xam ne boo ca jëllee ñett mu yàqu mu jàngal la ko loolu nag la sëriñ tuuba def pour bépp jullit bu ko xam jëfe ko loo jaamu yàlla doo ca juum te boo ca juumut yàlla nangu ko yàlla na ko yàlla nangul téere yu bari la mais tey ñi ngi tàmbaleek yow ci bi ñuy wooye al jawharu nafis Fi la tàmbale mubarakul ibtidaahi noo ngi ñaan barkeelab tàmbali gi maymoonul intiaa'i noo ngi ñaan barkeelab egg gi amin yal na yàlla nangu bismillahi rahmanir rahiimi maa ngi tàmbalee ci yàlla mi aji yërëme ak a xeewal ci àddina ña koy jaamu di ko sant di ko gërëm ak ña ko dul jaamu duñu ko sant duñu ko gërëm ñépp la yàlla xéewal ci àddina arrahiimi ta nara xéewal moom yalla ña koy jaamoo ko sant ka gërëm keroog yowmal xiyaam mu yóbbu leen ajjana yàlla ci yàlla boole wasallallaahu yal na yàlla dori teraanga ak wa ala sayidina ca sunu sang ba muhammadin muhammad nabi kay ku mu solo yónni ko ci jaam ñi wa alihi te yal na eggale teraanga ak ca ñoñam muy bokkam ya ko toppoon te gëm ko wa sahbi ak i sahabaam wasalamata mu dolli leen musal tasliman ak dolli musal amin yal na yàlla nangu allahuma yow sunu boroom sëriñ Tuubaa nee na aslih yal na nga sellal ummat muhammadin xeetu sayyidina muhammad wépp xeetu sayyidina muhammad nag mooy képp ku gëm ne yonent bi yàlla ko yónni gëm nga alquran gëm nga dekki gëm nga yàlla gëm malaaka yeeg téere yi muhammad nga kon yàlla nga leen sellal ñoom ñépp ba ñu ngërëmal amin muhammadin ñooñu mooy xeetu muhammad salla yàlla nga nga li teraanga ak jàmm yow sunu borom allah yow mi aji màgg ji ngóor ali ca muhammad ta nga dolli koo musal ñaanalaat na ko muy ñaareelu ñaan allahuma yow buur bi farij yàlla na nga teggi mooy yàlla na nga xettali an ummati muhammadin jëme ko ca xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama te nga dolli leen teranga ak jàmm amin allahuma yow buur bi irham yàlla na nga yërëm ummata muhammadin xeetu seydina muhammad amin sallallahu alayhi wa sallama te nga dolli leen teranga jàmm ginnaaw bi nga ko dollee muhammad amin hawnaka ñoŋgle dimbo ndiko ya mohino yow yalla mi aji dimbele wabi ka citta ci yow yalla nak nasta hino les di mana dimbe ndiko kon la hawla diet pexe wala xowata diet kattan ila billahi ndare juda tuke fa yalla al ali kay aji kawe al asimi kay aji mak asbuna doylo nanu allahu yalla wa ni'mal wakilu ak loyal yalla nak amut morom mo gëna wër lepp xala ma ngay wax al faqir aji xeebu ja ibnu habibin kay doomi tey sëtëb mam abibulaay ahmadu tañu diko woy ahmadu bamba ahmadu bamba momu nak ahmadu santna rabbal wara borom binde fi hamdan cant go xamne yodo mu day sax ba faaw mom serigne touba neena na ngi sante yalla te yàlla moom muy sant cant gi day sax ba faw tere bii nag nii ñu la koy firile ku ko firee nii da ko dégg dang ko makkal di nga xam lim ci jublu di ko mën am ci ngërëmal yàlla baati cosaan yi lañ lay indil ci lëgg-lëggi wolof yàlla na yàlla xiir ci ñu jàng ko mu ne mu ngi sant borom ndef yi moom sëriñ Tuuba musalliyan alal faqihi ma ngay ñaan teraanga jàmm yàlla dolli ko wàccee ca ku dégg ka feq hadi kay aji ko ko moy rasulillahi muhammadin moy muhammad teranga jam mom koy ñaanal wakkuli si ci hadi yal nako yalla ci jep aji farlu amin kep ko farlu fasiyene ju pat tabai ndigali yalla te bayyi terem serigne touba neena jam na yalla ci yow teranga jam amin haza nga jappali wa innani nakaman naka man saraftu walbatina hammi samay itte li aq di nasri laxdari yi jëme ko ca pas-pasi wesari laxdari yu alxarmi téere boobe nga xam ne ab sang la ci biir téere yi ndax la muy joxoñ farata yaak sunna yaak ngëneel ya lu wax bari bari lu mu xumb xumb feek waxoo farata ya ak sunna ya ca ñeenti kenooy diine ya des na lu wax bari bari fii ak waxoo farataay jullee ki sunnaam farataay koor ki sunnaam farataay aj makka ki sunnaam farataay lu wax bari bari ci diine fii waxoo loolu wax ja des na ndeysaan moo tax mu ne alxarmi téere bi ab sang la ci téere yi ndax moom yooya la lay joxoñ ndeysaan mu ne defar naa ko man Sëriñ Tuubaa li ngir téere bi nekk tufatan doon ab nooflaay li ku jëm ci képp koo xam ne araada bëgg na ifsuhoo mokkal téere bi min an ba i zaman ci mbooleem doomi jamono amul murit amul tiijaan amul xaadir amul ibaadu amul laayeen képp ku gëm yàlla bëgg a jaamu yàlla sëñ tubaa ngay jàngal nooy jaamu yàlla ndeysaan ñépp ku ko jëfee jàng ko xam ko jëfe ko am ngërëmal yàlla ak koo man di doon sëñ bi nee nag dinaa la ko jàngal yéen ñëpp min an ba i zaman képp kuy doomi jamono dinaa la jàngal téere bi sëriñ Tuubaa ni na muxtasiraan maa ngi dogal ngant likkulee hebrin jëme ko ci jépp jëpp fóoriya si adabin tey boroom ak dégg xam-xamu feq mu ne kooku maa ngi koy dogal ngant maa ngi sàkku tamit mu dogal ma ngant xabiri na mi tey aji deñ kumpa ci xam-xamu nëxu yow moomu tamit sëriñ Tuubaa nee na mi ngi lay dogal ngant mu ne waxawra tey aji dégg xam-xamu ërut mu ne yow tamit maa ngi lay jéggulu ngant maa ngi lay dogal ngànt wa adab te ngay géeju lool ci xam-xamu luxatul arabiya man sëriñ tubaa maa ngi lay sàkku ak dog ngànt wallahu yàlla rabbi kay sama boroom asalu maa ngi koy ñaan alxuboola mu nangul ma téere bi wala xaaw na maa ngi ñaan sunu boroom mu defal ma ndimal ci téere bi wataw fexa feexa ngi ñaan sunu borom mu defal mag deppele ba bi deppok ngeureumal yalla assalamu alaykum kon xana di len xamal ne waxtu wañ ñu mayoon foofu la yem bu nu dellu sey waatee nu wéyal téré bi téré bi nuy jang nak yow mi ko bëgg top man ko da ngay jënd al jawharu nafis su ko defee bu nuy wax rek nga topp wax ji du gudd te dinañ la ko waxin woo xam ne yomb naa xam yomb a xàmmee yomb a ràññee yomb dégg yal na yàlla may jëf ak topp ni ko sëriñ Tuubaa bëggee ni bëgg nun nu mel ni nu ni taalibeem nu mel noona ni mu bëgg ñépp mel ni muy mbooleem jullit mel noona ba ñépp am ngërëmal yàlla ñépp dem àjjana yal na nu yàlla mel loo noona nun ñépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu